te kii ma nga Amérique kii ma nga France kii ma nga feneen kii ma nga feneen bu dee ci biir réew mi ñii ña nga Kolda ñii ña nga feneen ñii ña nga feneen waaye daal yéen ñëpp am ngeen yëg yëgu ne ndaw ñi actuellement soxla nañ ko leen en encadré ci liggéey ci domaine sàngam ak domaine sàngam ak domaine sàngam pour nga créer réseau réseau réseau yooyu recruter membre yooyu nga xam ne ñoo ciy def seen alal pour mbir mi taxaw yomb na trop moo laa doon wax ne mën nga toog fii ci ron niim bi jokkaloo ñi nga bëgg a jokkaloo ñëpp par WhatsApp kenn ku nekk def ca lam ci war a def li ngeen bëgg a taxawal fii ci njàmbat mën a taxaw ndem nag loolu à l'échelle nationale la wala à l'échelle internationale la kon nag l'échelle locale bu ndaw bi nga xam ne tey alhamdulilahi rabbil alamina yilimaan yaa ngi fii ñi jiite commune yaa ngi fii chef de village yaa ngi fii notable yaa ngi fii ñoom ñëpp am nañu benn yëg-yëg ci nekkat a fii am na lu ñu war a mënal suñu bopp pour ngeen organiser wu facilement yomb na nañ jël rek coordonnées yi numéro téléphone yi ñoom ñëpp place ko ci biir WhatsApp bi am benn calendrier d'activité boo xam ne xam nañ ne lii kat lañ soxla la koy faciliter yomb saa yoo xamante ne ëllëg la ñuy war a daje benn yoon ngay lancé imam jot ci. message bi benn yoon nga koy lancé doo ci nekk di lancé di lancé waat groupe bi ngay ngay ngay jël ñoom ñëpp boole leen boo lancé ñëpp jotandoo ci message bi. ci ne ah la ñu soxaloon kat ci ndaw ñi fii ci tund Ndiakhate ñu war ci def ay liggéey daje bi ëllëg la nga mën a dajale sa waa jàkk wax ak ñoom mën a dajale sa waa village wax ak ñoom kon réseaux sociaux yi liñ ci war a mën a jëriñu bëri ci gàttal. waaye nag ay ay njëriñam gaar kenn mënu ko tudd moom jeex ñu ne ndax xam noonu njëriñ yi bëree de na la ngànje bëri na la ngànje bëri ci biir réseaux sociaux yi ngànje nag da nga koy commencé ci sa bopp xam nga seytaan bëgg na ñëpp di yenn ci mooy yàlla subhanahu wa taala di fanaan ci mooy yàlla seytaan loolu la bëgg loolu la ñu bëgg bëgg lu ñu leneen moo tax yar sa bopp yar sa njaboot doom mooy tax nga mën a mucc ci xayu njumtukaay yi les réseaux sociaux yi doomu aadama bu fekkente ne xol ba defaroogu ci yàlla subhanahu wa taala du mucc mukk ci bëgg bëgg sopan du sa mucc ci bëgg sopan te sopan neexut a dox bu njëkk pour nga dox sopan ah fawu nga bindul leetar jox diw ne ko demal joxal ma diw maanaam jox xale wala mag ne ko bu dee góor nga ne nga ne ko demal joxal ma diw mu jigéen bu dee jigéen la it bëgg sopaan mën na koo jox nit ne ko demal nga joxal ma diw mu góor ah bu mënta bind nag xaw mu jëm ko bind kon booba bon yoon yoon bu toll ndax la ñu daan weeree dafa bëri léegi nag ci bëgg moom ci xolam malheureusement réseaux sociaux yi da ko jàppandal la jàppandal comme jëkk mën ngaa nekk ca àll ba di saan saw fas mbaa ji gub sama gub jël sa téléphone wala jëm ci whatsapp bi cliquer yónnee fu sori wax ca lañ ca bëgg a wax wax ak moom ci téléphone bi li nga bëgg a wax ak moom bu fekkente ne jub tax koo jóg da koy yomb léegi dafa yomb trop ba tey kon moom itam dëgg-dëgg moom rajo maanaam rek sunu jumtukaay yu bees yi jàppandal na lool ak moom jàppandal na lool ak càggante surtout nag ci ki nga xam ne dafa sàggan moo tax yam diina rek la ci mën a dimbale te xam ne bu la kenn mënta mënta yëgit dana la wér ne moom sa jëmm ji am na ko suñ borom programme mu yéeme loolu ngay njëkk bàyyi kat sa jëmm ji kat am na nu ko suñu borom programme gis nga foo xool ci sa jëmm da nga gis ay kawar yu tuuti di ko génn poor yooyu maanaam bën bën yu ndaw yooyu ay kawar di génn ci yaram tuuti ay moyen d'enregistrement la maanaam ay secret magnétophonique la ko yàlla déplacé lépp looy wax suba ba ngoon ñu ngi koy enregistré ku mën a teqali koon aw yaram mën ngaa làqatu saw yaram mën ngaa làqatu sa der ba ne ah su ma bëggee def nangam kat xaaral ma summi der bi summi der bii di ma enregistré teg ko fii su ma defee la may def ba pare ñëw solaat sama der xam nga loolu moom kenn mënul moo tax nit ñi bu ñu leen di yar foofu lañ leen war a njëkk a bàyyi waxee ci ne lépp looy def sa jëmm mu ngi koy enregistré te bis dana ñëw jëmm jooju suñu borom tijji ko waaw laa lu ko wax lool suñu borom subhanahu wa taala bu wax la woon bakkan bu wax bu wax la woon loxo mu wax maanaam day jox ndigal moom suñu borom cër lay jox ndigal ne ko defal lii rek def kon bu mu lay yéem ëllëg say loxo di wax ak yow suñu borom ne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu ya'malun bisa ngi ñëw boo xam ne suñ borom dana ubbi làmmiñ yi ñu wax ab diir foofu nag làmmiñ lu koy setal rek lu koy setal rek man de yàlla ku baaxoon laa ku la bëggoon laa ku daan topp laa ku daan ku daan ku daan lu ne nga askane ko sabab ci mbaax ab diir suñ borom ne làmmiñ yi nañu téewu benn làmmiñ wax benn làmmiñ dootu mën a wax loxo yi ñooy wax loxo yi ñooy wax ñu ne déetuwaay ñu ne tànk yi ñooy wax loxo naan maa jàppoon tànk naan maa doxoon der yi di wax por yëpp di wax naan ñoo joon joo woon foofu nit dana yéemu jaaxle ci kanam boromam suñ borom delluwaat may làmm yi ñu wax lu ñuy wax li ma shahidtum alayna ma yéen loxo tànk lu tax ngeen di wax wax yi di teg suñ kaw te buñ lakkee ngeen lakk buñ ñuy duma ñu ñëpp ko yëngaloon qaalu antaqana allah allazi antaqa kulla shay wa huwa xalaqakum awwala marra wa ilayhi turjaun wa ma kuntum tastatiruuna an yashhada alaykum sam'ukum wala absaarukum wala junuudukum walakin danantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'maluun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasiriin yàlla ñu ci yàlla musal moo tax yar bii di aaya yu mel nii dañ ko war di jàng ba nit ki di bàyyi xel cër yi ne ah su ma làqutoo ñëpp it kat mënumaa làqu samay cër gis nga wa maa kuntum tastatiruun mënu leen woon a làqu seen i cër mënu leen woon a làqu seen i nopp mënuñ woon a mënu leen woon a làqu seen i bët mënu leen woon a làqu seen i der te yooyu yëpp a ngi àndoon ak yéen di jël loolu sax loolu doy loolu doy na yar bu mel noonu bu ko nit ki amee bu wéetee ci biir néegam du jëfandikoo njumtukaay bii ci anam bu baax du ci woo doom aadama di wax ak moom lu lu lu mu war a wax mukk ndax day bàyyi xel borom subhanahu wa taala non léegi bu ko defee kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy dimbale nit ki ba réseaux sociaux yi du ko du ko du ko dugal ci jéeye waaye nag bokkaat na ci liy dimbale nit ki bala ñoo dem ci yàlla ak borom subhanahu wa taala nga bàyyi xel nature bi nature bii nga la wër njumtukaay yi ci la ñuy dox yépp yéen borom xam-xam yi yéen a dem ba découvrir ay loi naturelle yu suñ borom subhanahu wa taala teg depuis démb ba tey suñ waxee démb mooy ci fa jiitu suñ bàyyi aadama ba tey jii yooyu ngi fi xanaa dañ ko yéex a découvrir rek waaye jant bi benn lamp la bu mag boo xam ne mu ñu tiim tiim adduna bi lépp lu fi yëngutu ndeke mu ngi koy jël 24 heures sur 24 ci la doomu aadama demee ba xam ne ah jant bii kat ak rayon yii mu am ndeke war nañ cee mën a am ay njumtukaay yu ñu koy lëkkaleel boole ko rayon solaire yi mu di ñuy yóbbul image di ñuy yóbbul xabaar. maanaam di ñu toxalal jëmmu di ñu toxalal la jëmmu ja doon wax ak la jëmmu ja doon def loolu doomu aadama liggéey yu ko mënu ko moo tax baax nañ trop nag bañ ko tuddee ne ak lii day ay lañ bët la yu aju ci xam-xam maanaam ay lañ bët la yuñ lañ bët di ko lañ bët ba mu wuññiku ci xam-xam boo xam ne ndeke muy woon fii sunu maam yaa ko gisutoon rek ñu tuddee ko ay alkushufatul ilmiya ay découverte scientifique découvrir moom bu ñu ko waxee mooy dafa nuuru woon waaye ba nga ko woon xelal dox nag ba àgg ci daal di muri ne ah lii kat mën na nangam waaw kala tàggatal rayon yooyu nga mën di yónnee ay image ba Siin ba Amérique rayon yooyu ngay jëlee ci moom ay xibaar bu di la toxalal ay xibaar xibaar yooyu moom fan la ko yóbbu moom rayon ba ko laaj yow li nga ci mën a capté rek nga capté la la ca des ma nga am am na fu mu koy jëfoo moo tax am na doomu aadama yu dem ba naan nii ñu gisee développement scientifique daañu dem ba jëmmi jamono ñu mën a bindaat histoire ci anam nga nguuree bi ñu leen laajee ñu ne parce que rayon yi bu ñu leen toppee fi ñuy yóbbu xabaar yi dafa yóbbu image yi. di fa dépo déposé jëf yi daañu fa mos a àggee bu ñu fa àggee lépp leer foofu naka la xew bu ñu fa àggee lépp leer wax nañ dëgg bu ñu xamul kon mbokk yi ñu bàyyi xel suñu diggante nag lépp looy def mu ngi koy jël police bi yëngatu ci wàllu criminalité wàllu crime du fi mu ne dem nañ ba am base boo xam ne. bu fi benn waaye ñëwoon léegi ci barab bi am lu mu fi def ci jéeye te yoruñ appareil yu ñu ko mën a photo mu def li muy def génnaat dem baal boobu buñ ñëwee lan ko ca saasa nga xam ne passé gul ay 30 minutes 40 minutes soreegul données yi soreegul base bi mën na capté données yi yëpp ñu àgg yóbbu dugal ci seeni laboratoire segg ba gis waaje ne ah jiw mii la kat gis jëf jàkk dama ko jëfee lépp ñu dem ne ko ñëpp indi ma ñoom fu ñu jëlee loolu noo ñoo ko liggéey kooku mooy borom bi tabaraka wa taala kon ci gàttal yow nit suñ borom dalaa boole yu rëy yu mag yoo xam ne xamuñ paa yittewoo seen biir 24 heures sur 24 di la jëf yooyu boo ko bàyyee xel. réseaux sociaux yi inconvénients yi mu àndal ci xeetu mooy yàlla lëtuloo ko mën a yóbbee dafa ngay bàyyi xel ñii di la enregistré ci kaw li lay enregistré ci ci li la wër ak li lay enregistré ci li nga mën a tax teqali ko moom muy sa jëm ci ñaar yooyu rek doyoon na pour nit mën a mucc ci inconvénients yi waaw plus nag malaaka yi yi yi moom plus malaaka yi malaaka yi foo toll seen i ndeyjoor seen i càmmooñ wa inna aleykum la xaafizin di nit ñu ñu ay nit ñu am dignité dañuy bind waaye duñ bind mukk lu bind woon fa lañ wutee doomu aadama ñii ay notable lañ ay malaaka lañ yoo xam ne ñu honnête lañ loo def suba ba ngoon gisoo leen waaye ñoom ñu ngi lay gis ñu ngi bind seen juróom seen ñoom ñit ñu leen bàyyi xel yaakaar naa réseaux sociaux yi ñu mën a jombal maanaam du ñu mën a dugal ci ci ci ndëm waaw plus nag suñu borom bi nga xam ne lu mu wax alam tara anna allaha ya'lamu maa fi samawati wa maa fi l-ard suñu borom mu ne maa ngi xam li ci biir asamaan yi yëpp ak li ci poos maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kaanu lam ci dëgg mooy summa yunabbi'uhum bima amilu yawma al-qiyamah mbokk yi loolu ku koy bàyyi xel waa réseaux sociaux yi ñu la mën a dugal ci jokkaloo yu baax te jokkaloo yu salte yi yu xaraam yi léegi yomb na loolu mbokk yi ah dañ naan yomb na cakabaay yu xel yéen te gàttal ko waaye ak a jafe ci ki bàyyi xel yéen tudd di ko dund boobu ay jokkaloo yu xaraam du réseaux sociaux yi duñ ko mës a dugal ci ci naka sa dund alhamdulilah rabbil alamin moo tax tey inconvénients yu bëri nañu ndax jokkaloo yi kenn mënul wax li ciy am ci ñaaw jëf soo ko waxee sax maanaam ñu jàppee la neneen waaye xam nañ ne ñaaw jëf yu nekk ci am mbokk yi nag bu ko defee inconvénients yi da cee bokkaat bu dul sax yii woon yëpp sa der bee malaaka yee borom bi tabaraka wa taala mais bàyyil xel nag ne li ngay wax ci téléphone boo fa xam da nga ko jaaree ci direct wala da nga ko jaaree par whatsapp wala da nga ko jaaree ci foo ko mën a jaaree ci yeneen buntu yi bàyyi leen xel ne kañ kay jot nga loolu man lay enregistré loolu bokk na ci inconvénient yi mën na la enregistré bu la enregistré wul moom la neex te xamuloo mu lay enregistré wala dégg foofu ay sëñ yu bëri yàqu nañ fi ay diggante yu bëri yàqu nañ fi ci inconvénient yi ko ah ci nett li ci benn xale boo xam ne moom moromam dañ doon téléphoné wante ndeke kii mu ngi enregistré morom mi teewul moom xale bu góor bi mu ngi enregistré xale bu jigéen bi muy téléphoné tel kii te saa yuy wax ak moom rek wax yu sàggan lay wax waaw am na ci loo xam ne moom dañ ko dund fii ci ci suñu pegg lay dee sax ndeke saa yuy wax ak moom rek wax yu bon lay kii itam topp ko ci wax ak moom ci langage bi même langage bi ba xale yi ñu bàyyi xel loolu bu baax man ñi sax ñu bàyyi xel loolu bu baax bi mu amee ci moom ay ay wax yu sàggan yu jaarul yoon mu ne nag lii buntu la pour foyee ko te kii borom jëkkër bis ñu toog ñu bëgg ci moom ak moom maanaam ca kële bañal ko ko mu ne ko kat ñaar rek mën a am nga nangul ma ko ma suturaal la enregistrement yi mu jaar du dem nga bañal ma ko ma ma weege ko sas sa mbir lépp sa àdduna yàq sa diggante sa borom kër muy def yàq sa diggante nangam sa diggante sa diggante sa diggante sa diggante mbokk yi loolu xam nga dañ bàyyi xel loolu bu baax moo tax ku leen woo ci téléphone nañu bàyyi xel lii ma lii ñuy wax nii su commencé wax wax bu juutu maanaam bu jàdd yoon rek yow waxal wax bu am ful la ci xamal ko ne ko ka ngay waxal sëqut ak yow genre yi te kuppi ko te kuppi la yaa inconvénient yooyu nañ ci daal di mën a mucc kon xale yi nañu bàyyi xel loolu waaw nañu bàyyi xel bu baax maanaam lii nag chaîne bi luñ tàgg rek la waaye boo ko toppoon da nga naan moom am na ca moom la mu doon wut ngir sutura suturaal boppam ndeket kooka itam jël na enregistrement ba jox ko yeneen i moromam da leen dem leen yéen sànqal ko ci gàttal adduna bi yàqu kooku la ku bëgg amati mbon rek day jël enregistrement bi ñëw tegal ko jox ma sa bopp mbaal ma def ma ci réseaux sociaux ci gàttal ma sa bu ko defee kon mbokk yi lan moo mën a musal nit ki diggante ma borom ak xale boobu dëgg la am na musiba bu ko dal ci mu dem bu naqari yàlla bu mu dal mukk suñuy suñuy njaboot waaye xaw naa sàggat ci lan nangoo wax wax yoo xam ne wax ju baaxul la ak ku mu ko war a wax wax bu sàggat moom waroo ko wax ak kenn astumalaak nag ngay borom kër maanaam ngay soxna boobu di wax ak yeneen góor yi yeneen wax moom bañ lay enregistré ba yàq sa loolu ñu ne kon bokk na ci inconvénient yi loolu nag ci wax bi la mu enregistré la bokk na itam ci inconvénient yi nett li bii ñuy bëgg a nett li am na fu ñu doon def thème bi yàggu dara muy xale bu jigéen bu ñu doon tuddee Amanda Todd yaakaar naa ñu bëri ci yéen suivre nañu xissa boobu yarul guddal ñu bëri ci yéen suivre nañu Amanda bi ba ñu xam benn waay bu muy jokkalool ci réseaux sociaux yi mu di ko wan bëggee ba bis mu ne ko léegi dama bëgg nga yëkkati sa pokkutaan mi nii ma ma ma ma foto bi mu ko fotoo ndeke fotowaale dënn bi foofu la ko jaar foofu la ko jaar ba def ak moom ci nii xale bi mujjoon ak moom fii amandaan bi dafa mujj ci gàttal moom ay famille am xajatuñu ci biir Canada fuñ tuuxu dem fekk fa réseaux sociaux yi foo foo ubbee gis foto xale bi ci commencé woon ci weer ba àggal moom fu gën a sori moo tax jigéen ñi nañ bàyyi xel loolu bu leen di nangu fooyee seen bopp bu leen di nangu kenn ku ngeen joteelul dara xataa sa borom kër sax bu la respecté am na yoo xam ne lu ko dugal ko doon yow sa borom kër bu la respecté am na yoo xam ne lu ko doon yow te loolu bu ko xasee am ci yow santas la am na ay borom yu doole yu ñu def bu ñu mel fii moo tax fi mu ne nii mu ngi ci jafe la waaw te malheureusement am na ay njumtukaay yoo xam ne mën naa nekk fu sori di la bàyyi xel boo futti ko di sangu mu filmé la. fekk sa jëmmu niw maanaam sa jëmmu ju rafle lay jël su paree dem seet fële benn nit koo xam ne teg ko dara ndax am na ci nit ñi ñu teg ko dara ne ko dama bëgg sa photo niw pour boole la ak waa ji am ñu leen jaxasee xaalis mën a génn ñu seen ko tax mu ci yombut boo yoree ay millions mën nañ la laaj ay millions ci sa alal ne la nag photo baa ngi nii dañ la koy yónnee rek yow ci sa email nga xam ne yow dong la concerné wan la ne nag ci sa biir email laa la ko yónnee maa ngi yor photo bi soo ma joxut nangami million danaa ko yóbbu ci biir réseaux sociaux mu tas te ngay borom bu njaboot am dignité ci gàttal ba mu jeex nooy def danga naan naa ñàkk million yi te sama honneur des bi kooku itam yàlla yam ko est-ce que du ko jox keneen kooku ñëwaat mun la topp ak ay million ba nga mujj jeex a takk kon ni ñu defoon xaru bi amandaan bi dafa mujj xaru ne daal léegi mun na jeex na na jeexal dundam benn yoon jeex lépp réseaux sociaux moo tax ñu ne inconvénient yi doy waaye kat xatta yow mag mi nga xam ne sax gëstukat nga bàyyi ko réseaux sociaux ndax boo amul ragal yàlla dëgg mën nga tomber ay sites yoo xam ne malheureusement pornographie yow dong ci sa biir néeg boo ragalul yàlla bàyyiwuloo xel yàlla sa xel bàyyiwuloo xel malaaka yi bàyyiwuloo xel sa jëmm ji di photo ko enregistré mën nañ dem ba miin loola seetaan lu xaraam te lu nekk waaw seetaan lu xaraam seetaan ay film pornographique ak ñu ñuy demee ñu lay bindal bàkkaar suba lool te nag attention gis nga site boo ubbi site boo ubbi bu baax baax bu bon baax ci yem say trace la mbokk yi ñu bàyyi xel surtout boo dee kilifa surtout boo dee ku ñuy fexeel bis ne ñoom ñu ne la ah yow kat visité nga site sangam site sangam ak site sangam ah loo ci wax nga bëgg a nakk-nakk ñu génn la say trace nuut ngay def lañ lay wax nag mooy condition la léegi liñ bëgg mooy wax bu ko def ci des ci sa àdduna dañ bëgg noppi waaw sama première semaine ci gendarmerie bi ñuy xool sama ordinateur bi gis nañ ci xeetu gëstu bu ne waaye dina wax dëgg-dëgg gis nañ ci xeetu gëstu bu ne mais lu tax yenn site yi yi kii yow mosuñ la gis say say trace ma ne ko daf mu yitte mu yeex tey buñ gisoon loola ci ma loolu ma taxaw fii tey di wax wax ji dakk na jeex na waaw bu loolu bu ko defee kon nañu bàyyi xel suñ diggante ak suñu borom loo wéet wéet wéet ci sa saal ci sa néeg loo war ta xool bu ko fa seet wax ma sa diggante ak sa borom de sa diggante ak jant bi de sa diggante ak jëmm ji de waaye sa diggante ak ñi nga bokkal ak ñoom yi loolu bu ñu bàyyi xel te la franc-maçonnerie mondiale am na ay jëmm yoo xam ne cible lañ ko lu ñu mën a am ci ñoom tuuti rek luñ mën a yàqee seen adduna danañ ko def danañ yàlla mos bu ko defee kon loolu bokk na ci inconvénients yi inconvénients yi dafa bëri kenn mënu ko sànq taal sànq taal da ngay dem ba daanaka da ngay mujj réseaux sociaux yi dañuy mujj surdo sa temps yoon doo ko defee dara looy mën a jaamoo sa borom looy mën a fàttalikoo sa borom déedéet soo paree ci site bi yaa ngi ca bële boo paree yaa ngi ca bële da ngay dem ba sa kër sa dootoo dootoo tal wax soxna yi wala wax ak doom yi ngir lan xatu jamono jël guñ jël sa tax ba jeex loolu yëpp bokk na ci inconvénients yi plus nag mbokk yi day def ay feebar jàkkaarloo écran bu ndaw bii toujours jamono bu ne day dem ba yàqal la nelaw dootoo mën a nelaw nga daan mën ne mënatuma nelaw lu waral lii fekk na secret bi suñu borom subhanahu wa taala def ci doomu aadama mu lay indil ay gëmmeentu moom la la yooyu yàq dégradé ko toog na nelaw noonu lay dem ba def ko sa cerveau ci inconvénient yi mën na dem ba yàq sa cerveau kon lii jumtukaayu gëstookaay la dañ ciy gëstu dañuy gëstu li boo paree dañoo dem jàmm si. ko defee kon mbokk yi kenn mënta wax lépp waaye boo junjee kon ni ñu waxoon ci kon contrat bi boo junjee li nga mën a junj li nga des nga bàyyi ko borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoom teew ñu mën a ko jigéen incha allah ñu wax ne li ñu fi jot a tudd des néew néew na lool waaye nag ay piste la yu bëri la mën a ubbi yàlla ñu suñu borom subhanahu wa taala musal ci xayu réseaux sociaux yi la nga xam ne moo ca nekk ci njëriñ bi yem ca mën mën caa yem képp yàlla ñu ko suñu borom defal hada wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala